وسون يكون ذا القياد أحياني الباخي بلا إماتة ولا تناثق ولا, ولا ألاهي كل من تعذما أني جسى والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المشفع شكور من سقر لي خلق بقى إذا من ربي مالكي خليلي والخبيب وخدمها أن يهدى يتبيب برأني من كل خيب ومرد وخادني سعة في كل خرد بريت من خيوب نفسي بالتجاء إلى الذي أبوابه لن تتجاء والكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد يا إلهي المال وكل من خسد خير كفان اخفض إلهي سيري ومعبة من المفاسد وسفل الأتن أبني دولا في ما كسا أمن في الآل والمال مالك سمن كما وتعالى تبعالك وتعالى من يا رب العالمين تبعالك وتعالى من يا رب العالمين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 وفي شعيب وإسماعيل الله وبي سليمان نوح يونس يزيد وزكريا يحيى ومدي الله هارون يوسف إلياس وآدم الله وداوود الكبري سالوت الله ويوسف وبيس حق وخيرهم من أنبياء ورسل لك يا الله وبالملائكة قرن ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وسائبين نفخ إسرافيل خابل يا وخفائك أسرائيل يا الله وبصحابتي ثم الأولياء ثم الأولياء ثم الأولياء ثم الأولياء إمام وبصحابتي ثم الأولياء إمام والآمنين من أخبار الله وبيس بالقرآن وبه توريت ثم بما داود جاء أبي وروح يا الله بلغ صلاتي وتسليم قليل والآل وصحبه والأفساد يا الله وأسئلنا علينا رب عافية وأسئلنا علينا رب عافية وما خسفي داريني الله وافتح لنا كل زلال وارك لنا جنة وسيداني يا الله وكمل كل ما من هو نقصده واب لنا كل ما أنت يا الله وارك لنا كل سي سحب وسيارة من وياسر كل سي تخسير يا الله تبين لنا عمرنا سير لنا بدنا واب لنا رزقا توفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدير بنا حبل الوصول لنا يا الله يا الله كلنا آسن زلزالة سنة والفخر يا الله إخانة هلة محزينة خلب وفاحة أتسل والجوية الله وبنة والوباء والخرق مع خرق والباقي مع سرق والكبي الله أرن وبرد ونخب كربة لخم بلا على دينارك والخم الله محمد المتايع جوديارا وهما كثيرا نقي الله وعافية بين الماء كلمة سلامة وعافية بين الماء سعد بن يوسف كسب سرينجا ونقجك كلمة سلامة وعافية نقجك وسعد بن يوسف وعافية كلمة سلامة وعافية dem na yóbbu seexu aafiya amatul saamatan wa aafiya yóbbu seexu aafiya amatul saamatan wa aafiya aka dem na yóbbu seexu aafiya amatul saamatan wa aafiya Touba rëy na lool waaye tubarkàlla macha allah fu la neex am nga fa accuwaay waaye boo gisee sëtu sëriñ Touba yi di la xëccoo sa jikko la ko bay kër sëñ Daam Atta sëñ Daam Atta ko jur sëñ Ibra Mbàkke sëñ Ibra Mbàkke loo jege jaar Mamour jaar gën laa jege jaar tout pare jumaa ji tout pare da ngay dugg ci jumaa ji boo gisee ñu la ko may sëñ Daam Atta man Touba la dëkk. saxaar ga wàccewu ma fa Touba la dëkk de saxaar ga wàccewu ma fa de boo gisee nga am wàccuwaay sëñ Dame Atta sa jikko la ko may li la ko may li la sa jikko sëñ Dame Atta doomi sëriñ Ibra Mbàkke daloog yow loolu rëy na te loolu yaa ko may sabab am nañu sant Mbàkke te amuñu loolu Touba waaye li la ko may mooy sa yar ak say tegin foo dem ci Touba tabarakallah ma sala ci ahlu Mbacké ñu lay xëccu bëgg a ak yow waye seutu Serigne Touba booba dal ak yow la ilaha illa le gu gudd de Cheikh ibrahim ko jur Cheikh ibrahim Serigne Touba waaw mu yëkëti appartement jox lako sab yar ak say tegg ne la may babakar alab yaré tax nu tegg ni tek way ñak yaré tax ñu tek ñu tek ko diko jaw li la ko may nak moy sa yar moo tax sëñ atta di dalok yow sax bagal ndax fi nga wara a dal magal bëri na lool waaye sab yar ak say teggin moo tax mu jox la appartement boo génnee dugg ci jumaa ji loolu sab yar ak say teggin moo la ko may kon Babacar Ndiaye yal na la yàlla la fa cat sama xol dafa sedd ndax xasida yi ma daan loo moo tax bu may oh, wax dënn lay waxe sama xol dafa sedd lii nga am yaa may sabab yal na la yàlla la fa cat yal na la yàlla musal ci ndab waaye yaa mel noonu ku toll na taman ni tëggal ni tam Babacar sëndam lu woo kenn moo tax kenn du sëndam lu ñii am nañ kër bu rafet mën na ko may lu ne sa xol bu rafet mën na laa may lu ne ndax nit ñi tubaarkàlla macha allah kenn ku ne sëriñ tubaa teral na la waaye li sàcc bañ ci asgor bu ko mooy yëkk sàcc bëggul koy gën a asgor bu da ko yëkk nu may def di joo gis nam la a tax Babacar kenn la teewul fenn kenn namul dara sëriñ tubaa ngi dimbali ñépp waaye boo gisee nit ñi def déplacement ak déplacement ñëw fekk si la fii ci kër kër Massar sa kër ngay sagal sa waja mam cheikh anta borom daru salam ngay daru salam ku tiir defal ko mam cheikh anta borom daru salam tay xol sedd na yalla na la yàlla lafal cat ni signeel mucc ci rëkk yàlla nga ni mucc seytaane waye gi nga sama waji mhm. dafa gën ah, waaw waaw ñewul dafa gën de sama waji dafa gën loolu am de xam nga valeur dañoo foog ni alal la mais du xaalis comportement la looloo ko dal taseeg la samba ko ca jam-jam moroomam ak wala li may sa géwlu judd moo tax may wax sa mbaax pour te jeter des fleurs waaye daa fekk mbaax di sa yëf noonu nga juddoo yàqoo mbaax yàlla bu la yàq mbàq yàq kuy sa yaay yande fay camara sa yaay doy titre doy ampleur nga teral sa yaay teral sa terus teral sa soxna la sukay baayam la suk ñokor semu ñokor semu bur semu dolay buri ngilaan bi waaye lii lu mën a nekk la lii nga def nii lu mën a la ndax yow nag màggal gi nag da nga coro xari mbàkke kumba tey soxna coro jóob maroso maroso yande waagaa nag bige yande waagaa nag jojo waa jeng ngoone kumba jeng birima maa ngoone ma ko du kumba jaari la ma saas ma coro fay saas ba tey ca dela njaay jaafun la la ndeela paara géwul la damel amari ngoonu sobel waga duba mu damel dëcc fu njoogu yooyooy ba damel biram ngunju damel dëccalaw baasin sur be jën biram joojo juuf gelwaar la bilam joojoog ma dikke joojoog sambule joojo damel maajoor fatim golo ñey seen baay ma xure jokkuleeg baay ma xure maa samba tàkkooy seen baay Babacar Njaay yaayom ba wax lu baax <laughs> ndax yaay kajoor yaay bawol yaay siin yaay barak yow ñi nga doon nu fekkoo leen fi jom géeg juddu géeg mbaax gi moo ma tax di wax nga jël sa lépp nag ni maam Cheikh Anta la te noonu nga mel daaru salaam nag noonu nga mel fépp nag soxna assooy sa yaay doy na tiitar doy na ample njaga mi ci ñu mbataar mi ci ndox ma sàmba gàdd ndaag ndaag ak mare maag xarit pend bu ya sëñ daam sa baay mu sëñ Ibra Mbàkke moom sëñ Touba mooy sa baay doy na tiitar sëñ Mbàkke ramataay sa yaay yow yaa coloré sa bés yow yaa fonk ñépp nag te ni mu mel Touba noonu la mel Tiwaawan ndax Salbe Diouf maamam nag la ñu tontoo Salbe bu mag mag ba jur xalif généraux yi nag asukan maram Salbe lu nit gàtt gàtt nopp dégg na loolu asu kan maram salbe yow sa maama jur xalif généraux yi moom meññ xalif généraux yi almaxtum ak almim ak Pape Malick mi ñuy jooy te noppeeguñu boo demee laayeen gii ñu bil la porte yi maa fa ànd ak yow maa fa ànd ak yow ci limaamu cawlaay buñ ñëwee ni lay Cheikh Ibra ni lay sëñ daam atta di daloo noonu lañ lay daloo foofu nag yow nag sa jikko sa juddu sa juddu sa jikko yàqu ko kon nag boo juddoo ni nga judd yaa ko def ñu wax ko man de Birima personnellement duma lebal kenn sama wax lu baax boo ma ko defalul duma la xarab waaye damay jàpp sama ñaambur ba ñëpp xam ni jàpp naa sama ñaambur toog jàpp ci sama une grande tranquillité nag xam xam ku ko fi ne waaye ñun daal cay cay bu gaa yëgul li fii léegi bi may dugg ci biir. xaw ma lu xew xaw ma ko estati. waaye am na ko woon ni ma xaw ma foo ne. waaye seen naa la ci estati. xaw ma kan waaye loolu ma wax léegi de. waaye sëñ Abdul sëñ Abdul Waduud mi toog ci biir. moom alaaji astak ko moom sëriñ daam mu maam si xanta ñu ko koy nuyu sëñ Xaadim wax nga léegi nii loo jige jige soxna jaara Mamour jaara borom saam gën laa jige jaar bis bi amul woon cey bu sëñ Tuubaa jógeen woon ci géej gi xaw ma fu nu jëm sëñ Babacar sa sang ba Cheikh Anta moo jël woon sëñ Gamba moo ko fekk gamoo voilà Cheikh Modou Lo daganaa fi dox mu Cheikh Anta Gawane bi sëñ Modou Lo doxee ba gis sëñ Tuubaa ba nuyoon teg moom mu ni ko mu ko mu ko pëseefu nga de Modou lu la indi di laaj ni ko ana Cheikh Ibra Fati mu ni ko ma nga mu ni ko ak am fit ak am ngor ak mu ma gëm mu ni ko ana Cheikh Ibrahima Fall mu ni ko mu nga fa rek di la gën a gëm mu ni ko bu ñëpp xaddi woon Cheikh Ibra Fall du dem waaye daf ni ko ana sama rakk ja sama soppi ba Cheikh Anta Gaawaan mu ni ko ma nga mu ni ko boo demee ne ko namm naa ko moo tax Cheikh Modou Lo si gi mu wax si woon Seex Anta nam gi ko Sëriñ Tuubaa nam bi mu ko fekkee Gabon ci àll bu ne dem boobu ci néeg boobee muy tàgg xasida lam yab bi mislul Mustafa Muhammad néeg ba néeg ba keroog keroog bi Seex Anta ñëwee fekk Sëriñ Tuubaa yam ci kaw nu nabiyal Muntaxa Muhammad xeeral a muxtaara inda samat bi mu laalee sàkket wi sàkket wi daa daa daa daa puus fekk ko ci néeg boo xam ni bi seex ñëwee sëñ Bàmba def ni ko toog al ci kaw lal bi ndax lal bii léegi la fi rasul lay jóge moom xibaaru sëñ ñëw